bu assumé la bi mu ko laajee buy politique yow bi mu la laajee nga ni ma société civile bu politiqueul alors ah. yow société civile bu politiqueul après dinañ ñëw ci société civile bi assumé ni day politique dëgg la merci Ali Moundiaye xam nga société civile kenn moomu ko mhm. mu ngi mel ni presse mu ngi mel ni parti politique donc ku ci dugg wax ne da ngay def société civile bi politique nga am nga ci droit je crois que dëkku liberté moom nit ku nekk war nga mën a exprimer say opinion ak ni nga gise sa say posture donc euh, société civile bi politique assumé ko aussi dañ koy constater rek ah du dëgg damay wax na ñun euh, de de plus en plus recherche ñu def à travers suñu plateforme Jàmmi Réew mi à travers ONG 3D ànd ci ak ay sociologue ñoom Djibi Diakhaté ñoom professeur Babacar Gueye dañu gis ne violence politique bi dafa am violence yoo xam ne daf ko daf ko dafa ànd ak moom parce que suñuy réew yi dafa am ñeenti xeetu violence yoo xam ne rek mën na leen taal masse buñ ci bëggee dolli violence politique d'abord dafa am lu ñuy ooy violence économique violence économique mooy lu ñuy ooy la répartition inéquitable des ressource mm. maanaam li ñëpp bokk muy alalu réew mu am ñi ci ko yore ba mu ne gàñ am ñoo xam ne yor euh, gisuñu ci dara mm. ba saalit loolu moo indi en général banditisme moo indi chômage loolu rek mën na taal réew ndax moo gisee marché yu bëri ci dëkk euh, i euh, inéquité boobu mooy faral muy indi yeneen xeetu euh, ñaxtu ba mën a taar réew ginnaaw violence économique yooyu dafa am yeneen xeetu violence ñu yooyu les violences géoculturelles violence géoculturelle yi mooy yi nga xam ne dafa am ci disparité entre les territoires maanaam ñi dëkk ci réewu taax am lépp ñi dëkk ci réew yi dul réewu taax ñàkk lépp maanaam booy xool booy dem ci yenn frontières yi doo fa gis dara par exemple ak li nga xam ne moo concerné minorité yi moo tax ñu ooye que les violences géoculturelles yooyu rek taal na réew aussi ndax gis nga fu am ya xeetu violence yooyu mu indi ay guerre ethnique ak yooyu beneen bi mooy ce qu'on appelle les violences institutionnelles booy xool mooy euh, ñàkk am justice bu tëddee ndey ji seex nit ñi jàpp ne euh, par exemple justice bi tëddeewul ndey ji seex ba mën di fajal seen bopp yooyu violence institutionnelle parce que c'est des institutions par exemple la justice war a nekkal fi ñëpp nekkalu fi ñëpp mu am ay rébellion wala par exemple nga gis euh, si d'autres institutions comme la police war fi nekkal ñëpp bu dara amee mu maate ñi bàyyi ñi wala euh, ñu jël euh, xeetu par raquette ñin ñeex yooyu ñu jël ko ci douane ñu war a par exemple taxe ñi du ñu taxe ñi bàyyi ñi ay impôts et autres même boo jëlee cas dugaan mën nañ ko def ramification yooyu yëpp maintenant yooyu yëpp violence yooyu yëpp mën na indi fitna ci réew mun na taar réew ba tax ne yooyu rek war na tax ñu ci bàyyi xel pour mu am ay équilibre ci suñuy société yi buñ ci boole nag violence politique violence politique dafa am ñaari xeet yoo xam ne dafay jógee benn ci entre opposition ak pouvoir surtout mm-hmm. mooy euh, même transhumance forme de violence politique la dem fekki euh, ñi nga xam ne dañu jóge ci euh, nekk ci opposition xëcc leen si guerre wala yooyu muy heurte ay ay ay conscience citoyen même même si au niveau même des partie violence interne yi mooy ce qu'on appelle bu investiture amee mu am xëccoo xeex seen biir donc violence politique tamit mun na taal réew te bu ñu deful ndànk mun na taal suñu réew mi parce que boo xoolee tey li am euh, dafa am phénomène yu juddu ci violence politique bi mooy phénomène u nervi phénomène milice xam nga déjà le fait que nga recruter nervi rek mooy yaa ngi commercialiser violence parce que boo jëlee nervi yi recruter ko mu jàpp li nga ko jëlee pour indi protection la wala buñ la agressé nga réagir nervi yooyu boo leen jëlee benn yoon utilisé woo leen dañuy naan doo leen jëleet donc déjà loolu rek dañuy fekk nu ñuy justifier seen salaire. Mm-hmm. wane ne am nañ njëriñ. waaw wane ne am nañ njëriñ déjà le fedd de recruter ay nervi rek yaa ngi créer violence alors de fait donc nervi yi ñuy jël mu nekk ci côté opposition bi ak côté pouvoir surtout côté pouvoir. loolu rek xeetu violence bu mun hmm. a tar réew hmm. beneen bi mooy milices yi ñu gis ne milices dañu am léegi te fës te amuñu formation ba tax na donc jàpp nañ na ñun li war a am tey ji aujourd'hui mooy une républicanisation de la sécurité au Sénégal hmm. parce que euh, sécurité dafa war fa dem ba état bi war ko jëlatal boppam si ñetti point par exemple war nañ toll foo xamante ne nii kenn du jug rek ne man may assurer sécurité ma sàmb wala ma demb daw ñu war a état bi nangu ne bu ñuy sécuriser ay leader politique mu ñu jëlee ko par exemple ci agence de sécurité yi nga xam ne agré agréé nañ la beneen bi mooy coalition yi bariwuñu leader de coalition yi saa ñuy déplacé wu dañuy déplacé wax mbooloo état dafa war a assurer sécurité cinq coalition la ñu jàpp ne moo fi am assurer seeni sécurité de sorte que bu ñuy dem ci gox yeex gox goxaan yi mën a àndax sécurité de l' état parce que sécurité de l'État ñoom ñu formé lañ ñu ñu xam nan la ñuy gérer ay provocation mais boo jëlee ay nervi ànd ak ñoom bu amee même provocation mën na indi fitna mm. indi xeex beneen bi mooy impunité la ñu warul bàyyeti ci réew mi maanaam yëpp gisoon nañu fi événement wu mars yi ñi nga xamante ne nii ils étaient identifiés identifiables et ci ay nervi ñu filmer leen te dara mujj ko tey ji signal fort bi Euh, président Macky Sall def mooy nervi yooyu yëpp ñu téye leen ñi leen recruter ñu entendre leen pour wane ne du ñu tolérer ay nervi ci Sénégal mais bu amee impunité ñu gis ñi ànd ak nguur gi yore ay nervi lan lay mujj indi loi. ñeneen ñi dañuy ut seeni i. ut mooy loi du talion maanaam ay pro ay dent pour dent parce que dañ dem ba ñoom après dañuy bëgg assurer ñoom tam seen sécurité. Hmm. ut ay nervi après mooy indi di indi guerre civile ci dëkk yu bëri ku nekk ànd ak ay nit yu armé. mu de ah, bu yàggee mu am confrontation armée donc l'État moo war a reprendre ses responsabilités dissoudre tout ce qui est milice wala bu ñuy tolérer milice mu nekk ay milices yoo xam ne dañ leen former mm-hmm. former leen ci ni ñuy euh, ni ñuy encadrer euh, seen mbooloo ni ñuy encadrer aussi seen i leaders nan la ñuy répondre à la provocation ensuite le la les force de défense et de sécurité gën a jël seen responsabilité tey ku mel ni Sonko mënul dem Ziguinchor te état bi yëgu ko xam ko waroon nañ jël ay matukaay mu am sécurité bu koy accompagner de sorte que même bu amee provocation dinañ éviter yu mel noonu leneen li may jeexalee foofu mooy fi ñu jëm nii plus ñu jëm ci élection di nga gis ne surtout élection présidentielle euh, violence yi day gën a nar gën a yokk maintenant je crois que baax na mu am chart pour la non violence boo xam ne leader yi dañ koy signer jël ay engagement public que ne kenn du ko violer mu am les imams les oulémas la société civile ñuy def monitoring de cette charte là. Mhm. comme c'est a été le cas pour Gambie ci yooyu. Mhm. ay piste la yoo xam ne ñun ñu ngi ciy liggéey. Mhm. pour que suñu réew mi kenn du ko taal. surtout que dañu nekk ci réew moo xam ne li ko wër yëpp mu ngi tàkk. boo xoolee Guinée Bissau Guinée Bissau y a des rumeurs de coup d'état ñu doon wax ci fan yi. qu'ils ont déjoué oui qu'ils ont déjoué alors Guinée même chose n'est-ce pas seen tour bi ñu wër yëpp seen tour de feu la. ku nag. ay taal wër waroo foyee allumette wala essence hmm. te li ñu am jigéen sor nag mooy taal wër la ngay foyee essence te loolu du lu yoon ci Sénégal li ma jàpp ci li société civile bi assumé